à tout inspecteur des impôts et domaines de divulguer par quelque nature que ce soit dette fiscale nit wala entreprise euh, ci place publique bi donc loolu moom en tant que ministre moom loolu yoon dafa dal ci kawam loolu ma koy ñaawlu parce que di jéem a vilipender nit ñi c'est pas ça sa mission Aliou Sall dafa war a xam ne dañ ko fal pour mu régler ay problèmes donc loolu c'est la première chose que je voulais dire la deuxième chose Aliou Sall man aussi il doit travailler quand même parce que euh, sama sama aqulay taala lay wax maître Moussa Bokar Thiam dama ko gën a respecté jour bi mu defee passation ak Aliou Sall ndax dama fekke lépp ma toog ma gis ko muy restituer ci passation de service bi daf ko restituer mais fidelement et ci question bu nekk maître Moussa Bokar Thiam wax na ko fii dossier bi tollu ak moom li mu yaakaar ne mooy solution bi mm. te presse bi luñ ko waxoon yëpp contraire bi la def liñ ko waxoon foofu il est sorti pour faire le contraire di wax di joxe ay chiffres yi nga xamante ne amul chiffre mi yëpp nan baaxu ci mën naa joxe exemple ci yéen chiffre bi mu wax ne des médias daf ko amelee comme dette fiscale. 11 pour cent pour cent du loolu. ci dette mhm. loolu c'est faux. donc man xaw ma fu mu jëlee ay chiffres am beneen bi troisième point bi nga xamante ne day wane ne que le ministre Aliou Sall n'est pas à sa place. mooy dama ko dégg mu wax wax ba nga xamante ne dama dama sursauté parce que daf ne canal horizon ñu ngi fay soixante quinze millions euh, de redevance que année prochaine dinañ dina leen fayloo quatre milliards cent loolu encore c'est archi faux ministre Aliou Sall day day confondre redevance ak impôt dama koy rappeler te na laaj na laaj ay service am ndax loolu ñu ñoo ko fa bàyyi Canal Horizon c'est un opérateur Euh, de communication audiovisuelle le code de la presse moo wax ne opérateur yi dañu war a acquitté wu d'une redevance annuelle redevance boobu mooy soixante quinze millions yi dañ ko war a fay chaque année wuute nag impôt bu canal war a fay loolu digganteem ak DGID la parce que quand même canal horizon entreprise la comme yeneen entreprise yi mais li mu warloo ak ñun euh, ñi fa nekkoon muy ministère de la communication mooy mu respecter le cahier des charge bi nga xamante ne moo ko tënk en tant que opérateur de la communication audiovisuelle te canal euh, les quelques renseignements yi ma am xam na ne canal vient de sortir d'un contrôle fiscal canal yoraluñu fis Sénégal dërëm donc moom bu waxee ne day jógee soixante quinze millions dem fayloo leen quatre milliards cent man bëgg naa ngeen laaj le ministre Aliou Sall de quoi il s'agit parce que il faut mu éclairer ñi ñu xam si c' la redevance la redevance et c' est la. ba nga xamante ne ministre moo ko jël. contre signé par le ministre des finances. mooy soixante quinze millions yi mooy soixante quinze millions yi. par an waaw te ñun ñu ngi fa fekkoon trente cinq millions. Mhm. am na sax réclamer plus. parce que am na ñu ne oui Canal Horizon euh, Côte d'Ivoire million cent cinquante millions la nangam ak nangam xam nga mais ñun données yi ñu am ci ñoom on a jugé que. Euh, nañ leen nañ nañ leen ko indi ba soixante quinze maintenant année yi di ñëw dina évoluer donc loolu lañ fa bàyyi maintenant quatre milliards cent yi muy wax man bëgg naa le ministre Aliou Sall wax ñu ci lan la correspondre alors tey dañu gis maître Moussa Bokar génnee ay euh, ci communique yoo xam te ni fay daf ci def ay chiffres euh, peut-être mu xam bañ a méngoo wala mu méngoowul ak chiffres yi ministre bi joxe lan lan lan lan mooy waral loolu wala diirum ñoom bi ñu fi toogee. dafa am lu soppeeku wala wala wala wala lan la yow mi fa yow ma. en tout cas en tout cas chiffres yi maître Moussa Bokar joxe. mooy chiffres yi nga xamante ne moom la ñu arrêté woon moment bi nga xamante ne euh, euh, patron de presse yi dañu demoon seeti le président Macky Sall. compte de la situation et de la morosité économique mu ne dina leen permettre à ce que ñu effacer. dette fiscale bi donc loolu. mooy chiffre yi nga xamante ne maître Moussa Bocar Thiam joxe na ko tey pour restituer la vérité dans toute sa euh, euh, clairvoyance loolu mooy li nga xam moo ci am maintenant beneen aspect bi mooy min Aliou Sall également man je pense que euh, il faut également toujours comme ni ma ko waxee muy étudier ay dossier am xam nga quand il parle de dette à la presse mu am lu mu ci wax na wuy euh, woo na IGE instruit na euh, instruit na IGE parce que gis nañu ne huit cent millions dépensé nañ ko fa euh, te demul ci entreprise presse laa ñaari jàngat laa ci am bu njëkk bi il n'a pas bien lu le code parce que rappelé maître Moussa ci am rappelé na ko ko sax tey ci communiqué am na ko boo bëggee xam huit cent millions yi pourquoi ñu def ko ci yeneen aspects yi nga xamante ne c'est dans les comptes de la presse. muy autre muy autre yooyu muy wax autre. loolu loi bi moo ko wax ci article quarante six am article quarante six bi wax na périmètre bi nga xamante ne au delà de subvention bi euh, wala aide bi wax na ci périmètre bi nga xamante ne war nañ fa mën a def aide à la presse. te gis nga aide à la presse bi euh, Mohamed nga baal ma vraiment aide. aide aide aide bu ñu ko tuddee aide mooy c'est insignifiant xam nga nga nga mën ni jël un groupe comme des média par exemple. masse salariale am di cent millions. par an waaw nga ne nga ne des médias par exemple jox la signification la am est-ce que cinquante deux millions yooyu mën na tax des médias fonctionner wala mu ñàkk bañ a fonctionner mënu ko ñàkk. c'est insignifiant. au regard du chiffre d'affaires bi nga xamante ne des médias comme organe de presse dina ko def annuellement. fi ne dañu war a comme ni mu amee ci yeneen démocratie parce que bu ñu nax askan bi dans les autres pays yi ñu yi ñu respecté dans le monde dafa am aide à la presse ah France dafa am feneen ak feneen dafa am parce que presse pilier wu démocratie la France tey jii man xool naa chiffres yi en 2024 l'aide à la presse en France ëpp na 200 millions d'euros le gouvernement en France joxe comme aide à la presse donc ci dëkk yëpp la am bu ñu foog ne ne que fii dafa am presse bu for ak gars yi ñu leen di jox tuuti weccit ex du noonu. très bien ci administration secteur bi la. nga xam ne ne que yéen da ngeen di rendre un service public. d'accord et par rapport à ce service public là c'est comme également dans l'éducation am na école privée yu bëri dañuy recevoir ay ay subventionné très bien d'accord donc loolu mooy la la vérité des faits c'est ça dañuy jox Fatou moom it mu tàbbi ci waxtaan bi foofu nga jeexalee foofu laay ñëw euh, Souleymane euh, aide à la presse bi est-ce que aide à la presse boobu amul benn déséquilibre manifeste bu ci am parce que sur la base de la répartition wax nga ko léegi des médias à presque quatre à cinq supports muy Tribune Zik FM Sen TV ak Actunet yooyu noonu yëpp am nañu ko ak somme bi ñu am beneen bi nga jël le cas de ri nga xamante ne dañu am 6 million jamono joo xamante ne am na site internet boo xamante ne moom moo ko ëppale ba doublé ko est-ce que foofu mun ñu fa wax que ne euh, am na lu leerul ci répartition wu aide la presse boobu. waaw xam nga en fait euh, la seule difficulté mooy ne ko commission bi euh, def répartition bi euh, commission boobu mooy définir ministre bokku ci. d'accord patron de presse yi la seen association yi radio communautaire yi ak la direction de la communication ñoom ñooy yore bi donc ministre bi newu fa ñoom ñooy fixer également critère d'éligibilité yi ñun toujours li ñu leen di rappeler mooy attention bu ñu appliquer critères yi dans leur dans leur euh, dans dans leur caractère strict organes yu bëri mën nañ leen écarter parce que quand même man dama koy faral di wax toujours on est dans des économies informelles bu ñu fàtte tubaab yi Euh, ñoom économie formelle la am ñun suñu économie dafa informelle donc ni ñu andee assouplissement tuuti.